oxygène nekk na loo xam ne dafa am solo bokk ci paj mi rawatina ci yenn feebar yi nga xam ne dafa jëm ci wàllum yi naam sax am na solo waaye oxygène jot ci nekkul loo xam ne dafa yëwan fépp ci réew yi nga xamante ne dañu néew doole wala ñu nekk ci yoonu suqaliku lu ci mel ne Sénégal ba tax sax OMS jàpp na ne loolu lu ñu war a soppi la ba képp ko ko soxla mën see jot. pour avoir l'oxygène ngir daal di jot ci oxygène bi faaw ñu daal di amay financement. OMS moo ngi def kéem kattanam. daal di jëmmal ay politique ak ñoom seen ngir am koom gi nga xamante ni moom la yëf yi itteewoo loolee nag moo waral ñu daal di amal bi leen ndaje ngir dëkk yëpp daal di déggoo ci kàddu di xàccandoo di dóorandoo ngir buñ génnee ci lile liñ ci waxtaanee ñu daal di koy mën a jëmmal. ces plans d'action puissent être suivis. jamono ji nga xam ne mbasum Covid dafa amoon wane ne solo bi oxygène médical am ci bërëb ya ñuy faje ba tax na OMS jàpp ne na sax faw nag ñu sóoraale lu ni mel ba tax yokk seen mën-mën ci wàllum oxygène Sénégal nag def na ay jéego yu am solo ndax hôpital bu ne sax am na central oxygène ba si ñaar fukk centre de santé de référence waaye li des moo di ne ñu lawal ko ci diwaanu Sénégal yëpp. il existe actuellement des GAP. qu'on euh, est dans le processus de dëgg la am na ay gap maanaam am na loo xam ne moo des ngir ñu def ko ba ñëpp mun jot ci oxygène bi waaye Sénégal mu ngi ci yoon bi li wóor nag moo di ndaje OMS bi doon na lu am solo ñett fan yi bu ñu si génnee ci rencontre OMS bi dinañu gën a am ay pexe ngir oxygène mën a am fii ci Sénégal ba mu doy. participe à activité là. ndaje ñetti fan bu organisation mondiale de la santé bi jëm ci wàllum njëriñu oxygène si biir faj bi dina ubbi Sénégal yoon ngir mu am yeneen koppar yu dolleeku bu ko defee ñu mën a gën a lawal oxygène ci bërëbu fajukaay yëpp fii ci Sénégal.